te dëgg-dëgg war naa ñoo gisee kone Sénégal war naa ñoo gisee te dëgg-dëgg war naa ñoo gisee kone Sénégal war naa ñoo gisee am nañ seen yóbbal mbokki internet yi mbokki téléspectateur yi nga xamante ne ñu ñuy faral di ñu seetaan à travers TMS TV yéen a ngi seetaan ak seen émission mode beauté et ñu koy faral di amal fii ci la TMS TV moo nekk chaine bi nga xamante ni day feeñal lépp lu nëbb waaye nag ma àndal ak ceek euh, sama naataango mu nekk euh, euh, Saliou Samb mu nekk sama naataango bu xarañ sama doyen ma bàyyi ci kanam tuuti mu daal di présenté wu waaye itam du ma fàtte nag tey ñoo ngi partagé plateau bi ak suñu benn invité euh, gu ñuy naan euh, jibi Camara dinaa ñëw ak moom ci kanam tuuti mu daal di présenté waaye ma jox ko sama naataango bi di euh, Saliou samp Saliou Samb ma jox la kàddu gi nga daal di présenté wu. voilà jërëjëf euh, Sarata di am mbégte ak kontaan di bokk ak yow plateau bi di mode beauté tendance tey nag comme ni nga ko waxee ñu ngi ñëw fii ci euh, unité 15 seet si ki nga xam ne moo di jibi Camara comme ni nga ko waxee am marque boppam mu nekk lu am solo donc maa ngi nuyu mbokku internautes yi mbokku téléspectateurs yi nga xam ne ñooy safoo di seetaan TMS TV jërëjëf Saliou Samb mu nekk nag sama naataangu bu xarañ fii ci la TMS TV waaye nag euh, ñu dem ci ki nga xamante ni tey mooy suñu invité mu nekk ndaw bi nga xamante ni ndaw bu xarañ la macha allah mu am idée rek créé euh, marque bi nga xamante ni moo di wax gàddu donc buñ ko déggee rek mooy euh, wuyu na tuuram ndaxte ku fi ñëw rek xam naa loo waxaale rek daal di yóbbaale sa sa sa sa produit donc ci loolu nag ñu daal di présenté Djiby Camara Djiby Camara nag mu ngi fii ci Parcelles Assainies unité 15 ñu bàyyi ko rek mu daal di présenté wu Djibi euh, salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah euh, salaamaaleykum waa TMS TV salaamaaleykum mbokku internet yi ñuy seetaan TMS TV yëpp. Mm-hmm. voilà c'est comme ni mu ko waxee c'est Djibril Djibril Camara moom sànq ba léegi mu ngi wax Djibi rek mm-hmm. c'est Djibril Camara mm-hmm. donc euh, dëkk fii Parcelles Assainies unité 15. Euh, initiateur ou créateur de la marque Wax Gadou Galsen streetwear 100% made in Sénégal donc euh, marque bi ñu ngi koy créé euh, en 2000 2013 2014 si je me trompe pas bien sûr 2013 2014 ñu ngi koy créé donc ñu ngi fii Parcelles Assainies unité 15 côté dépôt gage donc boutique bi foofu lañ ko samp donc pour l'instant je pense loolu laa mun wax avant ñuy xuus si waxtaan bi. Mm. Uh-huh. ok Djibi euh, donc comme wax nga ni euh, que ni depuis 2015 euh, lañ daal di créer 2013 2014 2013 pour mm. moi li nga xamante ni muy marque wax gàddu donc ñu laajaat la beneen beneen kii beneen question muy que ni kañ nga commencé def business bi nga xamante ni moo nekk wàllum jaay surtout ñu ngi gis sa marque yi mu nekk wax gàddu Galsen ñu gis itam ay pull ay t-shirt. ah ak ay casquette ay euh, dàll donc ñu bëggoon rek nga wax ñu ci dara tuuti. waaw euh, business bi ñu ngi koy commencé en 2012 bon 2012 c'était pas c'était pas carrément une marque nekkul woon marque quoi donc euh, en 2012 je pense c'était ma première année à l'université donc année boobu noonu xam nga ñëpp xam nañ université moom bon c'est c'est un peu difficile. boo fa duggee je pense que dinga xalaat créer ay affaire pour mun ci génn. kon jaar nga université. oui à l'université def naa fa deux ans en même temps euh, histoire laa doon def. département kii. Euh, donc mun nañ ne intellectuel nga. <laughs> bon intellectuel waaw waaw intellectuel waaw parce que c'est bac plus 3 en marketing. macha allah en marketing et communication. Mhm. donc maa ngi doon def formation. Mhm. tu vois donc je faisais les deux deux à la fois. Mhm. donc année boobu la ñu commencé business bi carrément man ak samay samay xarit ak sama benn cousin bu tudd Idrissa Idrissa Diago la. parce que on partageait le même lien en fait. ñoo bokkoon. Euh, ñoo bokkoon en fait c' était la même génération. ñoo demandoo université donc euh, si la ñuy toog di créer ay affaires. ak suñu benn copain Abdou Salam moom moo nekkoon suñu infographe. donc en 2012 ñi ngi commencé di créer ay affaires ci wàllu t-shirt genre euh, dañu doon defar ay t-shirt di di jaay quoi. nan ngeen koy defaree t-shirt yi. donc en 2012 ñu ngi koy créé ñu ngi créé ay ay ay ay ay bind ay écriture par exemple si je meurs enterrez en Afrique. sixième mooy Renoir enterrement au bled loolu moo nekkoon suñu suñu suñu business quoi au début au début loolu moo nekkoon business bi ñu jël ay t-shirt di ko dóor di ko jaay en Europe partout donc si loolu la ñu basé woon tamit créer suñu propre affaire pour pour marquer suñu suñu empreinte. Mm-hmm. ok kon euh, question euh, mais marque bi wax gàddu xam nga doo nga ne wax gàddu ba léegi wax gooñu exactement naka nga def ba war a mën a xalaat am inspiration boobu nan la la ñëwee naka la dikkee. si pour en fait loolu laa doon expliquer nii. Mm, loolu laa doon expliquer quoi léegi naka la dikkee exactement. bon de façon claire. de mm-hmm. façon claire. Mm-hmm. comme lu ma expliqué sànq 2012. 2012 dañu doon créer ay textes ay écriture ay messages. Mhm. ay messages la ñu doon lancé. dëgg la pour dire que ñun Afrique la ñu gëm. Afrique la am. si je par exemple su ma nekkee Europe par exemple si je meurs. Mhm. enterrez-moi au bled. c'est-à-dire enterrez en Afrique. loolu moo nekkoon suñuy message bu ñu doon lancé. ok ñu dem ñu dem si loolu noonu si lancé boobu ñuy continuer business bi di dox ñu ne que lii nii. amul bon day des ba léegi. Mhm. c'est vrai que message la mais day des il faut ñu créer benn affaire xam ne benn message boo xam ne. ñu xam ne ñun ñoo ko créé. te dañ koy jaay partout dans le monde. dëgg la donc si la ñuy toog xalaat créer la marque Wax Gaddu Galsen. voilà maintenant Wax Gaddu lu mu signifie. voilà Wax Gaddu Galsen nag dafa am message d' abord. avant ñuy mhm. joxe signification. allez-y dafa am message dafa am objectif objectif bi c' était quoi c' est à dire créer benn affaire boo xam ne. fii lañ ko defaree fii lañ koy jaayee te dañ koy jaay après partout dans le monde loolu moo mhm. nekkoon objectif bi mhm. cest pousser la la la cette jeunesse sénégalaise à consommer ce qui se fait ce qui se fait ici au Sénégal ce qui se produit au Sénégal consommer local mhm. loolu moo nekkoon objectif bi léegi message bi lan mooy message bi c'est-à-dire wax gaadu moo wax gaadu daa am fu mu jugee daa am fu mu jugee dafa am historique parce que dafa doon Mm-hmm. maanaam c'est un message euh, slogan laa koy wooyee sax. non man du ma sax wax slogan. Mm-hmm. damay naan histoire la d'abord. Mm-hmm. histoire la d'abord après histoire bi message la aussi. donc lan mooy histoire bi. qu'est-ce qui se cache derrière parce que balaa ñoom ñuy wax balaa ñuy wax Wax Gadou. étymologiquement parlant. maanaam origine moo bi. Wagadu la. Wagadu Wagadu moom mooy origine bi. Wagadu moom mooy origine moo bi Wagadu. lan mooy Wagadu. Wagadu c'est comme si nga ne waalo. jolof loolu mooy wagaru c'est comme si nga ne waalo jolof maanaam waa kii waalo waalo loo kii jolof jolof la donc wagaru tamit c'est c'est la même chose wagaru moom mooy terroir boo xam ne suñu anciens yi maanaam saraxule yi les soninké comme on dit ici les soninké ñoom ñoo fa dëkkoon maanaam histoire la xam nga mënoon naa ñëw par exemple ma ne wagaru bida wala wagaru euh, remme maanaam doomu wagadu quoi wala wagadu bii daal moom mooy histoire bi carrément mënoon naa ñëw wax lool mais su ma waxee loolu day limité wu. day limité wu te day nekk affaire ethnie. Mm-hmm. donc c' est pas c' est pas loolu c' est pas réfléchi. Mm-hmm. ñu ne est que est du ñu créer loo xam ne maanaam ñun du ñu génn si suñu contexte bi. Mm-hmm. dañuy des si contexte bi. dañu amaale message bi te ku ko gis da ngay comprendre facilement même boo comprendre du ngay laajte lan lu tax nga ne wax gaadu lan mooy wax donc loolu moo euh. loolu moo tax ñu créé Waxgaadu le mot vient du mot Wagadu mais dafa am signification dafa am histoire. am na signification si si foofu laay ñëw <laughs> dafa am signification dafa am histoire déjà Wagadu c'est quoi Wagadu ñu fa dëkkoon lan mooy seen histoire Wagadu c'est des braves hommes ñu fa nekkoon c'est des braves des gars yoo xam ne dañoo amoon dignité dañoo doon respecter seen kàddu. Mm. léegi comme dañuy respecté seen kàddu c'est des gens responsables léegi ñu jël moom ñu ne wax gàddu lan mooy wax gàddu wax gàddu mooy koo xam ne boo waxalee boo waxee lii da nga koy def dangay ngay assumer li ngay wax c'est-à-dire tu à chaque fois ta responsabilité loo mun a wax lii tey après pour pour pour faire le contraire moo tax ñu ne wax gàddu voilà respecte ta parole donc c'est des c'est des jeux de mots en fait c'est des jeux de mots comme comme art la parce que il faut comprendre ça aussi c'est de l'art aussi il faut ñu xam loolu tamit art la donc création la il faut nga mettre ko en valeur il faut nga nga nga nga nga nga pousser les gens à à à aimer ce que tu fais ou bien les pousser les gens à demander à chaque fois pourquoi ça mais sëñ bi bu ñu la déggee étimologiquement on dirait que ni euh, sa parole parce que sànq bi ma doon définir pour man wax gàddu mooy da ngay ñëw rek waxaale après yóbbaale donc on dirait que ni mot bi est-ce que tu doo trouver beneen moom lu dul wax gàddu puisque man dama jàpp que nii boo déggee olof njaay boo déggee olof bi en fait da ngay da ngay focaliser da ngay naan kon day am benn clientèle bu ñëw bu waxaale bu waxaalee rek en fait day am benn prix bi nga xamante ni c'est satisfaisant. mu jël ko yóbbu. yaa ngi comprendre. waaw loolu mooy bu yomb bi ah. pour pour ñu bëri loolu mooy définition bu yomb bi ah, mais mais mais en fait c'est ce qui fait le charme en fait. parce que boo ñëwee rek boo waxee yow da ngay jàpp ne loolu la. Mm. alors que dafa am lu nekk ci ginnaaw. voilà moo tax nag il faut trouver mais mot bi moom laa lay expliquer c'est-à-dire wax mm-hmm. gàddu. Mm-hmm. xam nga yow da nga ne maanaam boo ñëwee boo waxee rek nga gàddu yóbbu. Mm-hmm. man dama ne da ngay assumer. boo waxee boo waxee ba pare nga gàddu ce qui veut dire c'est des jeux de mots. ay jeux boo waxee da ngay assumer moom mooy boo waxee nga gàddu. cest faut assumer ta responsabilité. c'est-à-dire cette boobu noonu moom la ñuy wër ci ci ci ci ci marque bi. dignité boobu noonu le fait d'assumer li ngay wax noonu noonu le fait de bàyyi di wax waxet mm-hmm. parce que mm-hmm. mooy lu mu wax mooy mille 2012 boo si tu te rappelles bi 2012 mm-hmm. moo wax waxet mu ngi woon fii Sénégal mooy jamono Ablaye Wade élection présidentielle la moo wax waxet mu ngi woon fii maa waxoon waxet cest dañoo inspiré woon si loolu yëpp dañoo inspiré woon si loolu lépp pour créer Marc Wargado. Ça, ça se voit que vous êtes bien inspiré. Maintenant, est-ce que vous en tirez profit exactement vous en tirez profit ndax yéen a ngi ciy am mm. profit. waaw waaw waaw ça va mm, ça va alhamdulilah parce que 2012 ñu ngi commencé business bi. Mm-hmm. ñu ngi créé la marque en en 2013 2014. 2013 2014 te boobu ba léegi ñun amuñu woon boutique en fait on vendait en ligne. ok ok mais tey am nañu boutique. macha allah mais est-ce que vente en ligne bi yaa ngi koy continuer ba léegi. ñu ngi koy def en fait moom mooy gën a dox parce que boutique bi dañ ko def juste pour avoir euh, euh, pour avoir un emplacement wala un dépôt pour avoir une personne physique c'est juste pour ça mais boutique en fait en ligne la ñuy gën a jaayee. en ligne la ñuy gën a jaay en fait si en ligne la ñuy gën a focaliser de toute façon. voilà voilà moom moom la ñuy gën a kii quoi moom la ñuy gën a. donc on peut dire que vous avez une page Facebook ainsi am nañu page Facebook am nañu page Instagram am nañu page euh, euh, quoi am nañu am nañu am nañu groupe WhatsApp. Mm. am nañu WhatsApp am nañu bon tout ce qui est réseaux sociaux am nañ ko quoi. Mm. am nañ ko donc euh, affaire ñu ngi koy jaay foofu macha allah. ok mm. loolu bu weesoo bëgg nañ xam itam sa produit yu nga yore est-ce que le clientèle est à la portée en fait. maanaam est-ce que clientèle yi fi nekk. puisque sa endroit bi nga nekk on peut dire que c'est c'est difficile à réussir parce que parcelle lañ nekk. te xam nañ ni économiquement ça va pas donc bëggoon nañ xam itam est-ce que yow sa prix yi ngay exposé. est-ce que clientèle bi mu ngi ci satisfaire am am am am am. ndax prix arrangé na client yi quoi. voilà c'est ça <laughs> bon une précision parce que marque bi newul fii la juddoo ah, ñun man Grand Yoff laa nekkoon. Mm-hmm. man Grand Yoff laa defee sama cursus yëpp. Mm-hmm. foofu la basé woon quoi tu vois donc de Grand Yoff euh, marque bi foofu lañ koy créé foofu lañ ko créé autant pour moi ñu ngi ko doon jaay euh, partout nekkul woon Grand Yoff kese ñu ngi ko doon jaay fii partout au Sénégal ak au niveau international donc prix bu ñu koy fixé c'est à la base de euh, du pouvoir d'achat sénégalais en fait c'est-à-dire on s'est basé sur le pouvoir d'achat sénégalais pour fixer les prix Je vois que waaw. que vous avez parlé à 5000 francs. Casquette 5000 francs waaw mu noonu. C'est presque la même chose. comme ñoom dañuy importer donc ñun ñeneen du ñu importer dañuy jël li nekk fii ñu mettre ko en valeur parce que ñiy liggéey ci ginnaaw marque bi bëri na quoi. Ah, am na ki yor boutique par exemple muy def sérigraphie mm-hmm. infographe bi tu qui indi flocage bi. voilà y a une création d'emploi tout tout tout donc ce qui veut dire ñun dès dès dès dès le début dañu ne woon il faut ñu créer ay emploi loolu moo nekkoon suñu objectif créer une marque boo xam ne c'est du made Sénégal mettre en valeur ce qui se fait ici au Sénégal et en même temps créer des emplois c'est ce qui à la base c'est ce qui était notre notre objectif en fait te ñu ngi koy def alhamdulilah ñu ngi sant yàlla ci ci ci loolu noonu. ok alhamdulilah hmm. euh, donc bu ñu ñëwee itam ci difficulté yi nga xamante ni moom ngeen di rencontrer euh, dans le milieu est-ce que mën ngeen ci wax tuuti rek. ba difficulté difficulté waaw bon difficulté moom day am fépp quoi <laughs> difficulté moom day am fépp donc euh, difficulté yi ñu mën rencontrer fii c'est un peu cette complexe complexe nañ koy waxee des des Sénégalais. Com qu'est-ce que complexe qu'est-ce que bon vous pas d'infériorité mais complexe de sénégalais maanaam. Mm-hmm. il préfère par exemple bu ñu duggee ci benn shop par exemple gis benn marque boo xam ne c'est c'est importé mm-hmm. marque étrangère la mm-hmm. léegi mu mu ne mu ñu am ak côté beneen marque boo xam ne fii lañ ko defaree donc il préfère dem jënd boo xam ne c'est importé léegi sa marque bi yow ñu ñëw ña naan la may ma ko ma defal la promotion bon loolu difficulté la ci milieu bi. Euh, je pense que loolu mooy suñuy difficulté majeure si milieu bi parce que sénégalais yi bon c'est vrai am na ñi ko bëgg am na ñu bëgg marque bi carrément parce que au début au début loolu moo nekkoon suñu problème ñu bëri dañuy gis marque bi bëgg ko mais dañ koy négliger dañ koy négliger pour ñu sol ko sax dañuy naan yow da leen di may pour ñoom ñu sol ko ñu defal la promotion loolu moo nekkoon seen seen seen wax quoi jox ma ma defal la promotion mais léegi alhamdulilah ñoom ñu ngi gis marque bi mu ngi avancé donc dans ce cas dañuy obligé wu ñëw jënd par la force parce que gis nañu ñun gëmoon nañ ko dès le début ñu ngi ko doon pousse ba ñoom moment boobu ñu naan may ma mu defal la promotion nga aju leen après tey ñoom ñoo ñëw tey léegi euh, di di ko jënd te loolu loolu fierté la su ñun fierté la su ñun boo loolu moo nekkoon suñuy difficulté vraiment mais à part ça moom ak côté finance un peu parce que ay ndaw lañu amuñu woon moyen carrément pour pour mettre en place loo xam ne si si si si lu lu lu ngande lu ngande amuñu woon possibilité boobu noonu mais ndànk-ndànk lañ doon demee ba tey tabax euh, mettre en place suñu suñu suñu boutique bon difficulté yooyu yooyu la woon quoi mais alxamdulillah alhamdulilah mais des fois doo leen am ay difficultés euh, des fois doo leen am ay jigéen yu ñëw pour jënd. alors que ni jënd taxu leen jóg ñu ñëw pour euh, bon proposer leen leneen aussi est-ce que doo leen am yooyu pro euh, yooyu difficulté en fait. non man mayuma kanam boobu de. <laughs> mais même boo amee kanam boobu aussi am na yenn xale jigéen yu osé mun nañ ñëw proposer la yenn yi. non man moom mosuma am vraiment <laughs> mosuma am kii yooyu noonu. <laughs> mosuma am problème est-ce que mun nañ xam ku nekk sa ginnaaw. bon. sama ginnaaw que dafa am ku nekk seen ginnaaw comme ay partenaires hmm. européens wala dara di leen jox xaalis wala. yéen rek yéen a wu par exemple def seen propre hmm. moyen ba egsi fii. waaw ñun depuis le début ah ñun suñu propre moyen lañuy ñuy demee ah. Hmm. ak euh, suñu famille yi ñuy jàppale derrière. Hmm. parce que moyen moom du xaalis kese quoi y a moyen financier y a le moyen technique y a le moyen euh, euh comment dirais euh, moyen sur le plan du travail y a le moyen euh, maanaam ñii nekk sa ginnaaw par exemple ñu lay conseiller. xam nga yooyu yëpp c'est des moyens quoi dañ koy soxla. donc ñun moyens yooyu la ñu am ah, ak lu ndaw lu ñu am noonu suñu poche ñu koy ñu koy demee mais pas des des des gros bras yi nekk suñu ginnaaw duñu du ñu financer quoi. mais est-ce que xalaatoo dans l'avenir ngeen wut ay partenaires au niveau de l'Europe comme li ma la doon wax sànq. Hmm. am benn société boo xam ne da leen di defaral ay daal par exemple wala mu defaral leen ay t-shirt ça dépend mais muy euh, donc floquer seen marque foofu est-ce que loolu xalaatu leen ko dans l'avenir ay perspectives daal. si si di nga toll foo xam ne moom da nga koy soxla da nga toll foo xam ne dañ koy soxla te loolu lay ñaan yàlla en plus dem ba benn moment danañu am ay sociétés yoo xam ne c'est des sociétés euh, ñu ñuy approché pour pour liggéey ak ñun loolu dañ koy bëgg vraiment te ñu ngi ci lancé boobu. ñu ngi ci lancé boobu voilà parce que loolu lay ñaan yàlla en fait loolu lay ñaan yàlla am ay producteurs yoo xam ne dañuy ñëw pour pour produire suñu marque te dans ce yow doo génnee xaalis. maanaam marque bi nga leen di jaay marque bi nga la ñoom ñoom ñu produire ñu jaay bu ñu jaayee nga jël sa pourcentage ñu voilà mu ngi noonu boo bu ñu jaayee nga jël sa pourcentage ñu jël sa pourcentage ñun ñoo loolu lañ ñaan yàlla en fait parce que marque bi bu ñu tamit muy yem fii dañu bëgg ñu jaay ko bon ñu ngi koy jaay à l'international ah macha allah mais ñu gën a mu gën a mu gën a wéy en bëgg nañu loolu parce que fii gis nañ fii Sénégal ay marque étrangère ñu koy jaay fii mais pourquoi pas suñu marque duñ koy jaay dans leur pays loolu la ñu bëgg ok mm. euh, bu ñu dellusee dinañ la dinañ la laaj ci côté bi nga xamante ne est-ce que sa marque bi c'est reconnu par l'État maanaam c'est agréé par l'État puisque sànq yaa ngi doon wax ni que ni euh, sénégalais dañu am complexe maanaam sol ay marques yu ci mel wax gàddu Galsen wala yeneen i marque mm. donc ñu bëggoon nga wax ñu tuuti rek. waaw bon euh, loolu moom ñun <laughs> dès le début loolu la en fait loolu moo nekkoon suñu première kii pas yi ñu def. Mm-hmm. maanaam protéger la marque d' abord. fan ngeen ko protéger au niveau de la BSDA d' mm-hmm. ñu dem protéger marque bi. Mm-hmm. Euh, en tant que en tant que marque d' abord. Mm-hmm. bu ñu jógee si loolu ñu dem protéger nom bi en tant que euh, nom commercial ñun loolu la ñuy def. am nañu suñu NINEA am nañu yëpp. c'est bien tu donc dañ ko protéger entreprise la c'est une société. donc euh, comme société la entreprise la daa am ñi ciy liggéey. c'est reconnu par l'État <laughs> c'est reconnu par c'est reconnu par l'État am na NINEA am na lépp. bon sauf que man maa ko bindul fii mais am na Ninea am na tout quoi. ok waaw donc mais euh, lu tax commencé go investir ci côté daal exactement par exemple produit local dégg nañ fi ay daal ngaay dégg nañ fi yeneen lu tax xalaatoo par exemple ay daal kiwiir yu demee noonu yoo xam ne dañu am marque bi là-dessus. Hmm. vous n'avez pas pensé à ça. loolu xalaatoon nañ ko ah loolu xalaatoon nañ ko en fait on a fait a même fait des pas a même fait pour ça. mais xam nga euh, ñun suñu marque bi loolu lan mooy suñu sens lan moo tax muy exister ba léegi lan moo tax muy muy ñu koy am ba léegi je veux dire qualité bi la quoi bon c'est pas pour nous jeter des fleurs mais qualité bi la parce que ñun à chaque fois dañuy dañuy dañuy basé wu trop wala dañuy insister wu trop ci qualité bi il faut mu am qualité bu amul qualité rek du mu ko jaay il faut mu am qualité client bi bu ko jëndee mu xam ne lii qualité la bu ko solee après mu ñëwaat pour jënd leneen mais matière bi mën nañ xam exactement ndax coton la. Mm-hmm. et puis kan moo leen koy defal est-ce que mën nga ñu woon benn boo xam <laughs> parce que man dama euh. comprendre ndax am na entreprise bu am doole bu mën a defar yu mel nii. non amuñu ko Sénégal bu ñu amoon ah, bu ñu sañoon nag ñu am ko Sénégal. Ah, kon léegi extérieur ngeen di jëlee. bu ñu amoon nag bu ñu sañoon nag ñu am ko Sénégal. parce que parce que loolu mooy loolu loolu mooy suñu suñu suñu objectif loo xam ne mm-hmm. consommation locale la ñu wax. Mm-hmm. consommation locale mooy xalal. mais gisaguma coton de damay xaw a gis ay caractère ga ana coton yi. non li coton bu baax bi la <laughs> de coton ah, bu baax bi la qualité <laughs> bu de muy nii. bu baax bi la. qualité bu baax bi la. ok ok bii dañ koy indi. on est obligé de de l'amener parce que amul Sénégal dañ koy indi bu ñëwee fii nag ñu defar ko fii parce que bu ñu nekkoon mun nañu defar lépp fële mu nekk produit fini day ñëw fii nga jaay ko. mais comme lii am nañ ko fii mun nañ ko liggéey fii. Mhm. dina permettre man ma am ci xaalis ak bi am ci xaalis ki yor shopam tamit di def sérigraphie mu am ci xaalis loolu moo tax bu ñëwee dañ koy yóbbu foofu defar ko fii. flocage rek. ñu defar ko fii ak lii yëpp fii lañ ko defaree yëpp fii lañ ko defaree étiquette yëpp fii lañ ko defaree. muy noonu. donc li qualité bu baax la. Mhm. macha allah qualité bu euh, baax la c'est la même chose pour les casquettes aussi. qualité bu baax la muy nii. waaw ah, qualité bu baax la mais même chose da ngeen di floqué quoi mun ngeen ko mhm. vérifier mhm. moo nekk nii xam nga casquette originale ba sax da gis marque bi mu nekk si biir. gis marque bi nag mu nekk si biir. qualité bu baax la. bu baax mooy lu ma wax mooy lu ma wax sànq rek ñun moom dañuy insister si qualité bi. si si fois dañuy insister si qualité bi. parce que bu amul qualité moom après da ngay perdre sa clientèle. donc ça sert rien de de créer une affaire après. Mm. non bii échantillon la moom laa la wax c'est-à-dire rek la defar quoi mm. échantillon la pour xool ndax dina dox. as mm. gars yi dinañ ko bëgg. mais moom day defar image macha allah. parce que moom fii la nekk day defar image mais est-ce que doo leen jéem a maanaam ñi nekk au niveau de l'extérieur. Mm-hmm. côtoyer ak ñoom ngir amal ñoom euh, benn partenariat comme ça ngeen ñu fexe ba fësal seen di produit au niveau de l'extérieur est-ce que aussi tamit doo leen. am ñu ngi si lancé boobu loolu laa wax ñu ngi si lancé boobu. parce que ñun bu ñu sañoon aussi ñu am ay partenaires yoo xam ne c'est des gros bras dañuy jàppale ci ci côté production bi. Mm-hmm. pourquoi pas mu nekk benn partenariat par exemple nga liggéey ak. Euh, Euh, marque Jordan par exemple mu nekk Jordan ak côté wax gàddu ak côté wala Adidas ak côté wax gàddu à côté loolu bëgg nañ ko bu ñu sañoo loolu dañ koy am tu vois donc euh, mhm. euh, pas ak Jordan wala ak Nike mais ñu ngi ci lancé boobu ñu ngi ci lancé boobu donc dañ ñaan yàlla rek yàlla dimbali ñu ci loolu tamit quoi mhm. comme bu ñu ko commencé woon 2012 ba léegi ñu ngi ci moom donc ñu ngi ñaan yàlla tamit gën a évoluer Mhm. kenn mais est-ce que yen tamit puisque vous avez créé des emplois hmm. euh, yéen a ngi créé ci yi aussi tam yéen a ngi yëngu ci wàllum emplois donc est-ce que yéen tamit doole leen jël benn initiative dem ci ministère bi maanaam ki yore seen seen wàllum si seen boor. en fait ngeen dem ngeen waxal ko. ma voilà de l'emploi ngeen waxal ko euh, en fait ngeen wax ko li nga xamante ni moo leen yëkkati puisque yéen a ngi ci domaine boobu noonu mu mën leen jàppale ngir ngeen gën a li ngeen di def. Mm, waaw waaw je l'ai une fois fait ah je une fois fait mm. euh, boobu ban kii moo fi nekkoon. ban année la woon c'était en 2015 je pense. 2015 kii bi waaye xam lan de l'emploi. benn kii la seen benn. seen benn filiale la je veux dire. ANPS je moo nekk Castor. ah ok moo nekk Castor. j'ai une fois déposé là-bas j'ai une fois déposé là-bas dem naa ba foofu tout mm. mais après. comme DER non DER dew parce que soo <laughs> waay da ngay nga. maanaam seen lépp daal seen lépp politique la quoi en plus dañ koy camoufler nii rek naan ma ñu ngi financé ñu ngi financé defuñu fi dara. Ah. gars dañ jël xaalis bi dugal ko seen poste ñun am suñu projet yoo xam ne dañ ko bindoon depuis mooy parce que man maa ngi naan formation def naa formation en marketing man je veux dire sax sama mm. mémoire si lii laa ko bindoon si lii laa ko bindoon donc après jël projet bi defaraat ko yóbbu ko foofu tu mm. vois def planning bi yëpp tout nan lay demee tout déposé naa ko mais amul sax suite gis ma sax benn réponse gis ma réponse dara gisoo réponse et pourtant am na ñu am seen réponse <laughs> moom mooy li mu la wax rek. Mm. <laughs> Sénégal moom mooy loolu si voilà. c'est dommage. c'est dommage quoi wax lépp mais mm. fii politique moo fi nekk quoi ñoom dañu foog ne lépp lépp politique la. Mm. moo tax moo tax pour ñu avancer c'est c'est c'est un problème ah, mais du loolu kese man déposé woon naa beneen affaire parce que man je je suis dans le milieu milieu urbain culture urbain laa nekk. parce que damay évoluer si si ay genre dem concert def ay exposition tout ça. parce que am na benn somme bu ñu génne woon pour loolu noonu man déposé woon naa mais amul suite tu vois donc euh, ñu koy déposé parce que ñun ñoo ko moom dañ ko dañoo war a déposé pour am ko parce que on est comme tout le monde dañuy liggéey fii fii la ñuy liggéeyee parce que ñun tamit mënoon nañuy bàyyi fii dem kaaw dem liggéey parce que par exemple ñun suñu famille yëpp ñu ngi France tu vois ñu ngi foofu di liggéey donc ñun tamit mënoon nañuy bàyyi fi dem foofu di a préféré rester ici liggéey fii tu liggéey suñu réew donc si la ñu bokk donc ay financement bu amee dañuy déposé même bu dee bon gars yi duñu kii mais dañuy déposé. état bi dégg na message. waaw bu leen parce que vous êtes waaw comme ni nga ko waxee mënoon ngeen daal di jóg rek ne da ngeen di dem comme ni ñu doon def. waaw ah, dem wala euh, Barça mais vous avez préféré rester. donc c'est c'est de ça dont on besoin li ñu soxla mooy ay jeunes yoo xam ne ambitieux toog seen réew donc je pense que le le message est passé je pense que donc minutes yi ñu desee bëreetul ma jox la nga comme sa continuer wéyal waxtaan bi ok euh, sama dernière question muy que ni euh, est-ce que yaa ngi euh, def benn jéego maanaam xam nga des fois dañuy am ay touristes yu ñëw. Mm. ay ay ay ay tubaab yu jugee en Europe pour ñëw fii ci Sénégal est-ce que yaa ngi jéem jéem a def maanaam côtoyer ñooñu ngir jéem a exposé wax gàddu si ñu ngi koy def xam nga sànq maa ngi naan ñun man damay def ay exposition si ay ay ay concert tu vois. dem ah, suñu si damay def exposition suñu dernière exposition mu ngoon fële institut français. institut ah. mosoo si si damay participer ay foire damay participer ay foire par exemple suñu dernière exposition c' était fii institut français de Dakar. ok loolu moo avant avant Covid bi quoi. avant Covid bi loolu moo nekkoon suñu dernière exposition boobu. je pense que boobu maa ngi jël naa sax ay ak ay kii euh, comment dirais mooy consul ki bi la. Hmm? promo consulting. consul euh, non euh, de la comment dire la France. ok moom mu ngi woon foofu. ñoo ok foofu ba sama exposition il a aimé. il a aimé dem na sax ba jënd ay t-shirt. donc euh, ñu ngi koy exposé ah ñu ngi koy exposé hmm. partout. Hmm. tu vois donc. ñu ngi xalaat loolu tamit li nga wax noonu. jël sax ñun suñu bopp ñu jël marque bi exporté ko. yóbbu ko dem defi ay exposition au niveau au niveau international ñu ngi xalaat yooyu yëpp. te incha allah dina. dina am incha ok incha allah donc waxtu bu ñu jox euh, ci kàddu nag. Mm. ñu daal di waxtaanee li nga xamante ni moo nekk wàllum lépp li nga xamante ni mooy wàllum beauté ah wala wàllum jaay lépp li nga xamante ni soxal na. Mm-hmm. ay commerçant wala ñi nga xamante ni dañuy yëngu ci wàllum coiffure ah euh, ci wàllum li nga xamante ni mooy couture ak lépp li nga xamante ni rek ci wàllum mode pour euh, beauté lay jëmale dinañ ko daal di waxtaanee fii ci la TMS TV ci émission bi ñuy naan. naan mode beauté tendance ci naka noonu mbokki internet yi ma daal di jox mu daal di tàggatoo ak askan wi. Euh, voilà donc euh, merci merci à TMS TV. Mmh. donc euh, la marque Waxkatu Galsen. Mm-hmm. streetwear made in Sénégal la. Mm-hmm. consommation locale la. Mm-hmm. Euh, mooy xalal. donc euh, bi mu ngi nekk fii parcelle euh, Assainies unité 15. Mm -hmm. côté bi ah. donc ku ku bëgg t-shirt wax gaadu wala casquette. wala produit wax gaadu mun nga ñëw fii directement au niveau des parcelles Assainies unité 15 côté dépôt gaz. Mhm. donc euh, c'est un peu ça. Mhm. Euh, wax gàddu shop la wax gaadu Galsen la mhm. streetwear made in Sénégal la. c'est di consommer locale la. c'est ça donc euh, nañu consommer locale nañu consommer ce qui se fait ici. pour permettre ay ay ay ay jeunes sénégalais say frères sénégalais. ñu mun continuer di di di di di di promouvoir lu ñu lu ñu moom. ok aussi di créer emplois en même temps. ok jërëjëf sa kàddu gu mujj ci TMS TV lan ngay wax mbokk internet yi nga xam ne ñooy safoo di hmm. seetaan TMS TV. donc euh, nañu dem suivre TMS TV nañu abonné si seen page euh, YouTube. Hmm. TMS TV. Hmm. mu ngi euh, vraiment ñu ngi def liggéey bu rafet. donc il faut tamit. gars yi suivre leen abonné aussi seen page pour permettre ñoom ñuy gën a continuer di liggéey bu rafet bu def. jërëjëf donc euh, c'est un maa ngi di remercier pour invitation bi donc euh, équipe bi yëpp maa ngi leen di remercier vraiment. Mm. liggéey bi rafet na et chapeau à mm, jërëjëf merci beaucoup Sarata man tamit maa ngi tàggu donc mbokk internautes yi mbokk téléspectateurs yi safa di seetaan TMS bi kontaan am mbégte mbokk ak yow palato bi di mode beauté tendance xanaa bàyyi la rek nga daal di tëj émission bi. jërëjëf Saliou jërëjëf euh, Jibril kamara euh, sagam nee woon naa jibi <laughs> donc loolu nekkoon na mbégte ak contentement di présenté euh, seen mode beauté tendance mu nekk nag émission bu faar fii ci la TMS TV waaye nag duñu fàtte nuyu jox wàccuwaay ki nga xamante ni muy la king of the king di la xalif général Thierno Sow di le bro de dem donc nag di am mbégte saa su ne fii ci la TMS TV di leen présenté seen émission yi nga xamante ni émission yu muccub ayib ci yeneen i jotaay ci seen émission mode beauté. te dëgg-dëgg war ñoo gisee doomu ndey am nañ seen yóbbu.